Conseil sénégalais des chargeurs Gosek moo leen di may seen revue de presse dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyantoo yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy séq waxtaan wu yaatu ak Mamadou Moustapha Gningue ñu gën koo xam ci Fata wax na ci ay jaar-jaaram wax na ci ay projet am wax na ci audience bi njiitu réew mi di Macky Sall mayoon rappeur yi wax na ci Covid 19 beeg jafe-jafe yi nga xam ne indil na leen ko ñoom ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllu musique wax na ci projet bii nga xam ne ab émission la tuddee ko hip hop feeling ak nan la ko fas yéenee doxalee wax na ci lu jëm ci jafe yi nga xam ne moo am ci rab bi ak ni nga xam ne moom lañ ko war a doxalee jeune génération bi nga xam ne ñooy rap daan na ciy wax wax na ci projet Akon bi nee na Akon bu bëggoon Sénégal fi muy commencé mooy jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk ci rap bi yéen a di lii quotidien ak las ñu xëy di ñu yéen a kaay gii di lii quotidien las Sud Quotidien nee na fukki fan ak juróom-ñett ginnaaw bi batalo joolaa suuxee waaye nag naqaru xool wi nga xam ne ñi ñàkk seeni waajur amee woon nañu ko ba léegi nii ma ngay wéy yéen gii di Vox Populi nee na nag li nga xam ne moo jaaxal ñëpp mooy batalo joolaa mënuñoo wax ne kii moom moo def ñaawteef yéen a kaay gii de Les Échos nee na batalo joolaak ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen i waajur bis bu yàlla sàkk ñoo ngi am naqaru xol maanaam a ngi mel ni góom boo xam ne saa su nekk rek day wunni ñi nga xam ne ñoom la seen i mbokk des ci batalo joolaa ñoo ngi sàkku justice maanaam wàllum yoon waaye nag ba léegi dara amugu ca Cheikh Abdou Bara Doli Mbacke boo ko gis-gis bi ci yéen a kaay gii de Libération daat nay ñaawlu ñàkkum ndox gi nga xam ne jamono ji moo am Touba ndax bëri na ay quartier yoo xam ne maanaam toq ndox mënuñu ko gis te màggalu Touba gi ma ngi a kaay gii di fekk fa professeur Ngouda di jàngale ci lu jëm ci wàllum droit public xelam màcc jëm ci wàllum constitution daan nay wax ne Karim Wade jamono ji man naa nekk électeur ndax article L32 code électoral bu Sénégal bi nga xam ne moo waxoon ne Karim Wade mënta bokk ci élection yi article boobee moo waxoon ne Karim bu toogee juróomi at maanaam li ñu ko tëj mën naa amaat électeur moom professeur Ngouda Mboup nee na CREI musul wax ne Karim Wade ñàkk na ay droit civil am ak ay droit politique am kon ñi nga xam ne ñooy wax ne Karim Wade mënta am électeur ñooñu xaw ma man fan fan la ko teg yéen kaay gi di Walf Fadjri ñu fekk fa Mame Mbaye Niang daan nay jubbante ay miiru ñing mi nga xam ne moo jiite groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ndax ay miiru ñing fan yi ñu génn dafa waxoon ne Macky Sall am na sañ-sañ te mën naa def ñetteelu mandat ci bopp réewum Sénégal Mame Mbaye Niang nee na kàddu yooyu ay miiru ñing la engagé maanaam yoonu Macky Sall nekku ci yéen kaay gi de Les Échos nee na njiitu réewum Sénégal di Macky Sall ak Mouhamadou Buhari mi nga xam ne moo njiitu réewum Nigéria tuddee nañu leen ay xàll maanaam ay boulevard ci nga xam ne mooy Guinée Bissau Omar Cissokho Sanko Ambalo moo def lu ni mel waaye bëri na ay Guinéen yoo xam ne ñoom kontaanu ñu si benn yoon mer ñu si bi maara détaali ndax nee nañu Macky Sall ak Mouhamadou Buhari ñu ñoo fal ki nga xam ne mooy Séségo Ambalo ba pare Macky Sall ak Buhari dañuy jël seen loxo di ko dugal ci ni nga xam ne moom la Guinée di doxee loole moo leen naqari ba ñu jël drapeau bu Sénégal teg ko di si jaar di jàll yéen kaay gi de la Quotidien nee na wàllum politique ca Fatick maanaam diggante Matar Ba ak Biram Faye jàppante munta ñàkk ci yi nga xam ne moom la ñu fa dëgmal enquête yéen a kaay nee na Barça wala Barsàq gi commencé waat na naam sax am na ñu bëri ñoo xam ne teg nañu leen loxo coronavirus bi ma ngi fii waaye nag ba léegi am na ñoo xam ne ñoo ngi jël gaal gi di jaar ci ndox mi yéen kaay gi nee na ñenn ñi nag dañoo jàpp ne li ko waral mooy ñàkku liggéey gi nga xam ne bëri na ay ndaw yoo xam ne ñoo ngi ci Sénégal amuñu am xëy dañuy toog ba jant bi soox am na si nag ñoo xam ne tamit dañoo ndóol ba maara day taali te moo ne day Sénégal lu toll ci mille trois cent milliards joxoon nañ ko Sénégal ngir mu xeex lépp loo xam ne jëm na ci wàllum Barça wala Barsàq waaye tey la mbir mi gën a wulee ñaay gi libération dikk ci wàllum trafic drogue diggante xaar yàlla liberté 6 ak Grand Yoff waa dikk division des investigations criminelles ñoo fa dikk maanaam daal di ab mafia teg fa loxo lu toll si juróom-ñaar ci ay nit ñoo xam ne ñoo ngi doon yëngu ci lu jëm ci wàllum trafic drogue yéen a kaay gi di Sud xëy ci wàllum njàng meek njàngale mi ak étudiants yi nga xam ne am nañu bàkk war a dem bitim réew bi ñu ko xaymaa téeméer lañ ak ñaar fukk ak juróoma nga xam ne moom lañ leen may dafa tuuti te nag ñoom du ñu jël risque benn yoon di jël ay étudiant di leen di génn réew mi réew mi quotidien xëy yóbbu ñu te réewum Côte d'Ivoire nee na am na ay jege ñaa lay Guillaume Soro yu ñu tegal loxo jamono ji tegg nañu leen ko stade yéene kaay nee na FC Barcelone premier match am ab choc la ndax digganteem ak Villarreal la Premier League Aubameyang moo nekk africain bi ëpp lu muy fayeeku jamono ji championnat bu Angleterre yéene kaay gi di sunu làmb nee na Tapha Tine ginnaaw bi ko Ama Baldé daane risque bu mag la si moom mu jël Boy Niang 2 conseil